asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su dafa leen vidéo mbokk yi xam naa ngeen wax Mouhamed temps yi bonne la ñuy jox nu mu demee noonu mais bonne nouvelle bi jógewul si man benn xibaar boo xamante ne moo ngi tukkee foofu ci Europe euh, FIFA donc man sax maa ngi gisee si côté malien ak yooyu Burkina Faso ñu bind si mais Sénégal je pense que kenn kenn waxu si yooyu pourtant de taille boo xamante war nañ ko mën ku nekk wax si xalaatam mooy que dañu wax ne waa FIFA dañoo pare pour changer euh, donc xam boo xoolee joueur bu xasee ba dem benn nation am fa trois matchs officiels mënatoo jouer ci beneen nation maanaam benn Ferland Mendy par exemple xam am na match trois matchs officiels bëgg na jouer waat Sénégal fa ñuy paas mu a jouer Sénégal parce que lan trois matchs officiels maintenant ne waa FIFA loolu lañ bëgg nga jouer Espagne après mu nekk di xalaat nag entre cinq matchs cinq dem dix matchs ñu def ko normal comme basket jamono bi si noonu lañuy lañuy xaar mais lu si mënti am ñoom ñeneen dinañ ko yokk que joueur bu mën a bu demee fële mën a fubal fële parce que dafa bëri ay joueur comme Benzema à un moment donné dana man su ma yëgoon sax dem Algérie parce que mais mënatu woon dem Algérie fii que amoon na ay match officiel fële muy Nasri y a énormément de joueurs yu xamante ne amoon nañ peut-être après li leen def seen nation jox ñu leen cër bi ñu moom mënoon nañ dem seen dëkk origine parce que bëgg nañ seen dëkk origine ku si mel ni Evra par exemple doon bëggoon na jouer Sénégal à un moment donné mais c'était c'était c'était fait dem na France ba tey ba pare xamoon même le roi Sané bi xam xam naa ne sénégalais yi bëggatuñu ko par rapport ak problème moom ak euh, Sadio Mané du côté mu nekk ak si Sénégal mu tatouage yaram moom euh, donc carte Sénégal donc on a énormément de joueurs comme ça yu xamante voilà dem nañ beneen dëkk jamono bi peut-être euh, ñeneen ñi xamante ne seen i commentaire maa ngi koy xaar te ñëwagul mooy du ñu mbalit ñun du ñu mbalit xam donc boo fubalee fële bëgg ñëw si ñun basket bi xamuñu loolu

à un de donné bëggoon nañu ñëwaat Sénégal mais fini mon frère parce que yow yaa mon choisir euh, France à un de avec Dominique. donc bëgg nga ñëwaat Sénégal bi nga ñëwee dëkk bi gis nga dëkk bi ni mu neexee nga bëgg a ñëw et c' est malheureux pour toi donc jamono bi kii bu gën a taxaw mu leer xam ne Sénégal bon bu ko amoon am na un joueur de classe mondiale donte gars yi temps yi mën critiquer pour dernier match yi Mendy la Mendy c' un très bon joueur loo bëgg say joueurs yi Jakobs baax na lool xam nañ ko El Hadji Malick Diouf baax na lool xam nañ ko Moussa Ndiaye baax lool xam nañ ko Abdullah Ndour baax na loolu xam nañ ko mais on parle d'un gars qui est du côté de Real Madrid Bernabeu lay joué suñu waa on parle d'un gars boo xamante gagné na ay Ligue des Champions on parle d'un gars boo xamante l'année dernière mooy défenseur bu ñu gën ñu dribblé on parle d'un gars boo xamante ne la muy ñu nekk kam moo la gën sonal nga dajal xam da ngay trop mu ne Ferland Mendy donc ñi di ko dal c'est vrai que temps yi méforme Real Madrid te Real Madrid la am en même temps

vous avez des gens gis keneen wax leen ma parce que ay Ousmane Dembélé France compliqué Manu Koné C'est compliqué moi ngi France vous convoqué mais ben jour bu xam vous convoqué convoqué wuñu ko mu Au Sénégal vous ko convoqué. jamono convoqué. parce que daan vous dañ koy bëggoon ngeen ko temps bëggoon convoqué Amadou Onana convoqué est ce que vous comprenez donc ben jour moo la ñu waroon yeneen dëkk yi di ko jël kenn convoqué leen ñu wër ko mën a jël xam man football moom dama si nekk logique xam football loo koy seetaan di gën a dem at yi di gën a dem souvent damay saa match Ligue des ne lii benn chanson la bu ñuy seetaan maanaam match yi dañ koy comme boo xoolee seetaan Real Madrid Liverpool euh, Liverpool bi da xam ne ñële day yàgg dañuy dugal 2-0 pour terminer maanaam c'est des benn affaire la boo xamante ne éternel commencement la rek loo gisoo ngay gisaat rek donc man dama toll fu xamante ne dama dee ak Angleterre ma yaakaar ne suñu joueurs yi Nampalys Mendy à un niveau la nekk Pathé Ciss à niveau nekk jour boobu laa xam ne ñun am na lu ñu dese face à Bellingham Anderson euh, Rice donc Ferland Mendy face à ces joueurs là amul dara lu mu leen di ñëwee lu mu leen di faale saa yi Real Madrid laa nekk saa yi aw ma lu may ragal si yow si un joueur de classe mondiale pour ñu naan nag Ferland Mendy mënul attaqué Ferland Mendy c'est Ferland Mendy euh, avec Zinedine Zidane danaan attaqué mais c'est avec Ancelotti que ne Ancelotti ne ko noonu Vinicius Junior soit yow ya, gérer ma tasse défensive yi après ya, Vinicius va va faire le reste c'est vrai ya, c'est pas Marcelo techniquement parlant mais par rapport à nous man bokk suba bu Ferland Mendy ñëwoon règlement bi ñëw bokk naa si ñii di ñii di d'accord man kanu ma wax dara xam kan lu tax kanu wax dara bi bi bi yitu bi mu si bi muy tàng jël en 2017 2017 2018 avant la coupe du monde dama doon wax Mbaye Niang lu nekk dégg naa ko Mbaye amal ñu njëriñ ñu qualifié mais ñaa amal ñu njëriñ coupe du monde suñu premier bi boobu moo ko dugal doon ko fàtte mu guddi wax naa ko Bouna Sarr amul lu mu si déggul Bouna Sarr nii dafa waxoon lii moom dafa bëggoon dem wax naa ko Habib Diarra Habib Diarra daawal ñu ne maa yow doxal fële ak xamu tey lañ ko gën a bëgg donc man fi ma taxawoon sama conviction su ma li ma fi ma taxawoon démb fa laa taxaw tey lu ma si dindi yoo tax dama gëm ne képp ku baax te képp ku nekk joueur de très haut niveau dem feneen mën nañu jëriñu maintenant nag l'autre l'autre chose mooy am na ñu xam ne yaa ngi wax ñooñu y' a wax bu fekkee règlement bi à voir ndax dañ koy dindi complètement parce que basket bi ñëw ñu fi di réglementé ne temps de match temps de di dañ ñëw ne boo mënee jouer fii amuñu problème handball amuñu si problème man saan naa benn coupe du monde coupe du monde boo xamante ne handball xam nga man mu jeex tak ñoom ñoo joué ñu ko gis yeneen sport yi pourquoi pas le football le mu avancé ba ñu andi ay VAR ay leneen ak leneen c'est une possibilité que ñu andi loolu règlement bi maintenant de de dix matchs koy def de cinq matchs lañ koy def wala dañ def complètement ku la neex nga dem ñëw yow yaa xool nag certes bu ñu ko defee comme club dina soof parce que joueur bi dina toog fii naa xamu fële wala yu demee noonu mais mon frère y' a énormément de jours yu xamante ne gars yi comme Boubacar Kamara mën nga ko jëriñoo parce que instant yi lu parce que descente jël na parce que descente bëri na ay jours yu muy jël da ngay xañ Sénégal da ngay xañ Mali da ngay xañ Algérie da ngay xañ Maroc boo mënee andiwaat Boubacar Kamara sawaay sawaay lu ñu yor nii neex na de milieu terrain gën ñu Afrique li ñu yor agul jamono bi milieu terrain mënuñu jamono bi gisuma afrique ñu gëna baax milieu terrain say bo xëccé ben boubacar camara aston villa nga xëccé ben ferland mendy xawma na le roi sané dañ koy jëriñu mais man le roi sané luma ko contre contre tay ji ni bu fekkon règlement dafa sané ñu da nga mëna jël le roi sané mom mu ne bëgg na jël sénégal suñu côté côté droite bi am énormément de difficulté lañu am amuñu joueur de côté bo mëna andi ben le roi sané fu mu waji à la place de Ismaël Sarr jël de mon frère je suis désolé damay jël le roi Sarr mon frère damay jël Sofiane Diom mom damay jël Ferland ñoom dama leen di jël de attention man bu règlement bi changé ñoom moom ma am possibilité ma leen jël sooyu mu fi nekk naan non le a Sané dafa jotoon ak Sadio Mané Ferland Mendy xaw ma mënul attaqué dafa dese man a attaqué euh, euh, Boubacar Camara moom dafa dem choisir France képp ku xamante ne mën nañu jëriñ ñun Sénégal ñu mën ko jëriñoo dama naan sooy la porte est grandement ouverte maintenant reste au coach mu décider. parce que histoire nag moom ñuy jox un peu raison nag si ñi ngeen fi kaas ñëpp Mbaye Niang ak Nampalys Mendy Abdou Diarra mi Bouna Sarr à chaque fois gars yi dañ leen di saaga au finish ay susu du ay la ñu doon maanaam ñu doon xas di leen kaas di leen wax jóge leen fi après ñoom la ñuy gën a bëgg équipe nationale du Sénégal donc bu fekkee règlement bi changé na et moom c' est ñoom si processus boobu lañ nekk et si ces jours mën nañu équipe nationale du Sénégal franchement je suis preneur yéen xam nga ban xalaat ak ban gis-gis ngeen si am. ci commenter wax leen mag ce sera intéressant man am seen xalaat ak seen gis-gis par rapport à ça donc mbokk yi li mu vidéo bi wax leen gars yi donc verre yi rafet na lool yaa ngi na xam donc sama partenaire bu bees bi la ki may sama rakk bu laa bàyyi mu gérer loolu xam ñoo bokk ndey ak bàyyi numéro moo 117 352 31 si very yi après naa leen dugalal fa tey au niveau de communauté yéen ya, ñi bëgg maaya yi aussi tamit maaya club maaya sélection ballon original le même numéro 117 352 31 01 mbokk yi jaajëfal naa leen bu baax wax leen ba beneen suitable TV.